ku yàlla nar a suturaal te bëggoo suturaal sa bopp kooku sa affaire la benn nga génn par la grande porte ba nga génn par la petite porte waxoon naa ko Ablaye Wade comme gëmuma mu ne day demaat élection ba ñu duma ko fi duma yu metti mu xëy génn pale ba bu ñu wattuwul nag lu ko gën a ñaaw mooy am fayda fayda la tudd et puis lii nit ñi nekk fii di werante ndax troisième mandat ça c'est des faux problèmes faux débat la waaw ba tax na kon nag na nit ñi am seen fayda am nga dafa am benn thème bu ma waxtaanee ca Mbàkke keroog xalif général des murit sunu baay bu baax bi yónnee na ma ndaw ni ma baaboon noppee ci waxtaan wi di nga jaar si Touba ma ni ko comme Serigne Cheikh def la digoon ngan ma ni ko damay bañ jëkkantu moo tax ma bëgg rekk ba bis buy ñëw ma ànd ak moom mooy gën a rafet mais keroog la ma traité comme mooy li ñoo tudde ci arab al fitnatul muqaddasa al fitnatul muqaddasa buñ ko dee firi ci wàllu tubaab mooy le nécessaire ñun dañuy defandi rek lu ne jàmm jàmm mu saf suukar mu neex déedéet kon bu doon lool la rekk yàlla du wax yonent bi mu jihaad et pourtant jihaad li Serigne Cheikh wax ni jihaad firiwul xeex fayu lay firi nee na mooy ku ñu yàgga tooñ ba tooñ nga ëpp yàlla xëy nag ni la fayul looluy jihaat bu ko defee kon nag dégg naa mu ni sëriñ Babacar si nee na tooñ bu dul dakk baaxul waaye muñ bu dul dakkit baaxul waaw bu ci ne dafa am limitam waaw la patience a ses limites li sabri xudud bu ko defee kon nag yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla def ko wax mu génn màkka bi mu génnee màkka dem gàddaay Medina ñuy tabax jàkkaam ma nga sol froc ba mu sol jël kaalaam laxas ko ci boppam ma nga ñàqtooy xepp nekk ca biir rang ba nit ñi di awante mool yi moom it muy jël ci mool yi di joxe pour ñu teg ci kaw mur bi ñu di ko booleek seen way yooyu le inna al ulaha bagaw alayna ida araadu fitnatan abayna mel ni lu koy def genre taasu yonent baa nga ca ànd ak ñoom di way waya ak baatu nubuwaam boobule waaw waaw al ulaha bagaw alayna ida araadu fitnatan abayna mu boole di joxe mool yi maanaam wax mooy am na ñoo xam ni fitna la ñuy wut ci ma di leen yëgal ni nag duñ ko am ci ñun naka lañ ko wax ba noppi rek la première chose bi yàlla njëkk a def mooy mu indi leen xare ba dara pour wan leen ni leen fitna bi ngeen di daw jaru ko am na ñoo xam ni par force la ngeen defante ñoom yonent bi jël ay disposition ay waa këram jël seeni disposition ñu doon daje jeeg waa Makka ak seen réewande yooyu ndax ñoom dafa bokkoon ci seen façon bu ñuy xeex dañ naan lay indil sama nawle am na ku nga xam ni bi mu génnee ci chefu Quraysh yi abu ubaydat ibn al jarraax génn taxaw ci kanamam def ni yonent bi indil kuy sunu nawle parce que kii du sunu nawle te yonent bi nawle xamu ko ci deret ci pas-pas la ko xam mu ne ali ibnu abi talib génnal waaw ali abi talib génn daggate nit ka chef ba waaw ba ñuy for ay cëram ci suuf waaw chefu Quraysh yépp ñu rey leen ci bés bi Bilal Bilal mi ngeen di dégg moom rekk a ca nekkoon nit ku ñuul waaw bi ko Abu Sufyaan njëkkee fekk mu toog ci rangu jullit yi ñu julli ba noppi te mu ñëw di nuyoo ku mu nuyu doo ko fàlle te booba mooy meeru màkk mais booba ñi yonent bi am gisatuñu borom daraja li ñu gis rekk mooy ku fi yàlla bàyyi muy nuyoo di nuyoo ku mu nuyu doo ko fàlle ba mu yegsi ci Bilal ni ko waaw Bilal yow naka mu mu ne ko ci lan mu ni ko woyafal gi ma ñii di woyafal yow xanaa doo ci bokk mu ni ko lu tax mu ni ko jaam nga woon ca ñun mu ni ko waaye duma woon seen jaam jaamu ki ci kaw laa suñu boroom boobu la nekkoon jaamam te moo a teg fii teg waaw ba tax na dafa am lu nga xam ni boo ko dawee jaru ko l'essentiel mooy bul def lu yàlla d'accordul bul def lu la kilifa joxul ndigal ndax am na lu nga xam ni jaasi du ko réglé paaka du ko réglé fetal du ko réglé yàlla ni kun rek fayakuun moo koy réglé waaw ba tax na ko nag ñun on s'en fout sunu waxtoo jotagul rekk gis nga ba bëccëg ba bëccëg fekk 48 heures ci gannaaw nee nañu ma ngeen bàyyi xel seen cérémonie bi parce que bëgg nañu yebal ay nit pour ñu infiltrer leen pour créer ay événement ca ca fa ngeen nekk événement yi commencé woon na ci ci bunt bi mais sécurité bi ñoo leen neutraliser bu ko defee kon kontine leen ci seen tarbiya kontine ci seen daara xam seen kilifa mooy kan am na loo xam ne bis bu waxtoom jotee kenn ku ne di ko yëg ci sa xol yëg ko ci sa xel waaye mën nañ caa bañ a yegg nag waaw ndax yàlla mën na régler li muy régler te boobu coono du ñu ci fekk ndax wakafa allahul muminina al qital góor gi moo ko waxoon waaw